ginnaaw loolu naka la mbooloo ma dajaloo ba mat ay junni junni nit di tàncante yéesu tàmbalee wax jëmale ci taalibeem ya ne leen moytu leen lawiru farisiyen ya li dinaa feq amul dara lu nëbbu lu ñu warul biral mbaa lu kumpa lu ñu warul a siiwal looloo tax lu ngeen wax ci biir lëndëm des na ko dégg ci leer lu ngeen déey nit ci biir néeg des na ko yégle ci kaw taax yi maa ngi leen koy wax samay xarit bu leen ragal ñu mën a rey yaram ba noppi dootuñu mën a def dara dinaa leen wax nag ki ngeen war a ragal ragal leen ki nga xam ne bu reyee ba noppi am sañ-sañu sànni ca safara waaw maa ngi leen koy wax ragal leen kooku juróomi picc rammutu ndax duñu ko jaay ci ñaari dërëm moona yàlla fàttewul benn ci ñoom seen kawari bopp sax wañees na leen kon buleen ragal dara yéen a gën di raanu ràmmutu te maa ngi leen koy wax képp ku ma nangu ci kanamu nit ñi doomu nit ki dina la nangu ci kanamu malaaka yàlla yi waaye ku ma gàntu ci kanamu nit ñi dinañu la gàntu ci kanamu malaaka yàlla yi ku sosal doomi nit ki dinañu la baal waaye kuy sosal xel mu selli mi ñu la ko baal bu ñu leen yóbboo ca jàngu ya ca kanamu kilifa ya ak àttekat ya bu leen am xel ñaar ci li ngeen war a tontu ak nan ngeen war a tontoo walla lu ngeen war a wax ndaxte xel mu selli mi dina leen xamal ca waxtu woowa li ngeen war a wax am ca mbooloo ma ku ne yeesu kilifa gi joxal ndigal sama mag mu sedd ma ci sunu ndono yeesu tontu ko ne sama waay kan moo fal àttekat ci seen kaw walla teg ma ma leen di seddale seen alal noonu mu ne leen ñoom ñépp moytu leen bëggee ndaxte bakkanu nit ajiwul ci alalam ak lu mu baree bari noonu mu dégtal leen wii léeb ne dafa amoon waa ju bari alal te ay toolam nangu lool muy werante ci xelam naan nu ma war a def ndaxte amatuma fu ma dajale sama ngóob mi noonu mu ne nii laay def daaneel sama sàq yi defaraat yu gën a rëy ba man cee dajale sama dugub ji ak sama am am jépp te dinaa kañ sama bopp ne yow mii am nga alal ju bari ju mën a dem ay ati at noppalal sa yaram di lekk di naan tey bég waaye yàlla ne ko ñàkk xel guddik tey des na jël sa bakkan kon li nga dajale lépp ku koy moom kiy dajale alal ngir boppam nag te amul dara ca kanamu yàlla lu mel nii moo lay dal noonu yeesu daldi ne taalibeem yi loolu moo tax maa ngi leen koy wax buleen seen bakkan jaaxal ci li ngeen war a lekk buleen jaaxle it ngir seen yaram ci lu ngeen war a sol ndaxte bakkan moo gën lekk te yaram a gën ko daay seet leen baaxoñ yi duñu ji duñu góob amuñu dencukaay amuñu sàq teewul yàllaa ngi leen di dundal tey ni ngeen ëpp maanaa picc yi anakan ci yéen ci kaw njaaxleem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 miy sax tey te bu subaa ñu def ko ci taal bi ndax du leen gën a wodd bu leen di wut lu ngeen di lekk walla lu ngeen di naan te bu leen ci jaaxle ndaxte loolu lépp ñi xamul yàlla ñoo koy wut te seen baay xam na ne soxla ngeen ko waaye wut leen nguuram te loolu lépp dina leen ko ci dollil bu leen ragal dara yéen coggal ju ndaw ji ndaxte dafa soob seen baay mu jagleel leen nguuram jaay leen seen alal saraxe ko ngir sàkku ay mbuusi xaalis yu dul bënn maanaam alal ju dul jeex ca laaxira foofa sàcc du ko jege te max du ko yàq ndaxte fu sa alal nekk fala sa xol nekk itam takkuleen bu dëgër te bàyyi làmp yi tàkk mel leen ni ay surga yuy xaar seen gi buy jóge ca cet ga ndax bu fëggee bunt ba ñu ubbil ko ca saasa surga yooye seen njaatige fekkul ñuy nelaw ba mu agsee ñoo gën a yeyoo ngërëm ci dëgg maa ngi leen koy wax njaatige bi dina sol yére yu waañ wax leen ñu toog lekk ba noppi indi leen ñam wi su fekkee seen njaatige ci xaaju guddi lay ñëw sax walla bu suuf seddee te fekk leen noonu surga yooyu ñoo gën a yeyoo ngërëm waaye xam leen lii bu boroom kër gi xamoon ban waxtu la sàcc bi di ñëw du ko bàyyi mu toj këram yéen itam taxaw leen jonn ndaxte doomu nit ki dina ñëw ci waxtu wu ngeen ko seenuwul piyeer ne yéesu borom bi ndax dangay dégtal léeb wi ngir nun rekk walla ngir mbooloo mépp borom bi tontu ko ne kan moo nekk surga bu takku te teey bu njaatigeem teg ci waa kër gi ngir mu leen di dundal ci jamono ji bu njaatigeem ñëwee te gis mu def noonu surga boobu dina am ngërëm ci dëgg maa ngi leen koy wax njaatige bi dina ko teg ci alalam jépp waaye su fekkee surga ba dani ci xelam sama njaatige day yeexa ñëw ba tax mu tàmbalee dóor surga ya ca des ak mbindaan ya di lekk te di naan di màndi kon njaatige ba dina ñëw ci bis bu mu ko seenuwul ak waxtu wu mu xamul dina ko dóor ay dóor yu metti jox ko añub ñi gëmul yàlla surga bi xam bëgg-bëggu njaatigeem te waajul mbaa mu takku def ko dinañu ko dóor dóor yu metti waaye surga bi xamul bëgg-bëggu njaatigeem te def lu yelloo ay dóor dinañu ko dóor dóor yu néew ku ñu jox lu bari des na la fayeku lu bari ku ñu dénk lu bari des na la laajaat lu ko ëpp dama ñëw ngir indi safara ci àddina te bëgg naa xaar taal bi tàkk faw ñu sóob ma ci metit te ba looluy mat duma noppalu ndax dangeen a xalaat ne dama ñëw ngir indi jàmm ci àddina déedéet maa ngi leen koy wax dama ñëw ngir indi féewaloo ginnaaw si tey bu juróomi nit bokkee genn kër dinañu féewaloo ñett dinañu féewaloo ak ñaar ñi ci des ñaar ñi féewaloo ak ñett ñooñu baay bi dina féewaloo ak doom ji doom ji ak baayam ndey dina féewaloo ak doomam ju jigéen doom ji jigéen ji ak ndeyam goro dina féewaloo ak jabaru doomam jabaru nit ak goroom yéesu ne ci mbooloo ma bu ngeen gisee mu xiin ci sowu dangeen naan ca saasa dina taw te mooy am te bu ngeen yégee ngelaw liy uppe sudd ngeen ne dina tàng tàngaay wu metti te mooy am naafeq yi ngeen doon mën ngeen a ràññee meloo asamaan si ak suuf si waaye lu tax mënuleen a ràññee li jamonoy léegi ji di tekki lu tax du ngeen àttil seen bopp liy jëf ju jub bu la nit jiiñee dara ba ngeen ànd di dem ca àttekat ba nanga fexe juboo ak moom ci yoon wi lu ko moy dina la yóbbu ci yoon yoon jébbal la ca loxoy alkaati ba mu tëj la maa ngi la koy wax doo génn foofa mukk te feyuloo bi ci mujj